nag mooy mën mu ni fii xadiisihi tawil ci xadis bu gudd boobu nga xam ni fii qissati Hiraqla ci histoire moom ak Hiraqla woon Hiraqla ni ko qaala Hiraqla ni ko fa maada yamurukum kon xadis bi da ko gàttal rek waajooju moom lu mu leen di sant lu mu leen di digal Abu Sufyaan ni ko parce ñu jur mooy yonent bi sallallahu wa sallam nee na ma ni ko xultu ma ni waxda moom daal day ñëw naan na da ngeen jaamu yàlla dong benn yàlla te ñun ñu am trois bu ci bu ci neex ñu jaamu inna hada la shay'un ujab aja'ala al alihata ilahan wahida ñoom loolu du leen jaaxaloon la yow yow ni ngay toog léegi kuy bokkaale di la jaaxal yéeféeru màkka yi ku doon wéetal yàlla noonu la leen doon jaaxal te dooni nit ñi àgg nañ fa yéeféeru màkka yi àggoon ah loola mais jamono day doxaat ba nga dangay gis ku nekk ci lu dul tawxiid mën a accepter kuy bokkaale ak nu bokkaale waaye mënut a ku nekk ci tawxiid kon daa na fa yéeféeru màkk yi ak got ak garab ah na kenn du ñaan ci bàmmeelu diw waaw ah, kenn du jébbal sa bopp diw àdduna ak àllaaxira ah nga xam ne man nit mën na la cee noonu sa mbokk sax mën na la cee bàyyi moom mi ngi ci réer yow nga ne ci njub mais pas-pas bu yàqu mën na koo jaral mu bàyyi la ngir loolu loolu la yéeféeru màkka yi defoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu leen di woo ak lu mu leen di sant mu ne ko nee na ñu jaamu yàlla dong benn yàlla abudullah waxda te ñun ñu am yàlla yu bëri am nañ laata am na uzza am nañ manaata am nañ ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba pare nag mënuñu wala tushriku bihi shay'an bu leen bokkaale yàlla kenn maanaam jël leen yàlla kese te bu leen ci rax te yàlla boobu ñun gisuñu ko nee yàlla boobu ma nga ci kaw asamaan nee na yàlla boobu moo ñu bind nee yàlla boobu daf ñuy dekkil ñun ñu dund ba toll fi ñu toll buñ amee soxla ci suñu yàlla yii la ñu jëm ci la suñuy bàyyi nekkoon solo suñuy maam nekkoon ñu te yàgg gone gu tuut koo xam ni ci suñ kanam la juddoo ah ñëw di diingat li suñuy bàyyi ak suñuy maam nekkoon gis ngeen kaset euh, bi ni muy tourné même terme yi même terme mooy yi ni jëfandikoo ba léegi kenn ay gone yu ndaw juddu fii bërki dem ah lu nekk ngeen naan euh, baax loolu lañ doon wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu metti woon lool ci moom xanaa foofu la ñu wutal moom yow moom yaakaar naa ne lu metti amu ci loolu daje lu maanaam lu ñàkk solo la ci kanam yonte bi sallallahu alayhi wa ak lu mënti doon na parce que moom la mu daj ci rek gone goo xam ni ñëw na weddi li fi suñ bàyyi ak suñ maag yi da bàyyi woon ñëw na di diinga ñëw na dina wax loo xam ne xamuñu ko ah tax ñu bu ndoxataal génne ko rey ay eh, eh, ñi ko gëm xeex ko fekk ko sax fam dem xeexal ko ba mu génnee màkk taxul mu mucc fekk nan ko fa xeex ak moom Badar xeex ak moom Oxod xeex ak moom Ahzab yeneen xeex yu bari da ngay gis ni jëlee ñoo doon ñëw di fekk si mu ni ba tey waa jooju daal yow buur bi bokk na ci lim ñuy sant mu ni mu ni ñu watruku maa yaqulu abaa'ukum mu ni nag loolu nag moom moo gën a yéemaane xam kéemaane xam naa ni mu ni nag nee na li suñ bàyyi nekkoon nag ko jël teg fële waaw ñoom daal comme ni ñu koy tamit yi ñoom ñoom gëmuñu gëmuñu gëmuñu kenn suñuy baay suñuy maam la ñu nekkoon nee na nañ ko jël teg fële ah kay baay ak maam su fekkee ni lam nekkoon baax na dangay ñëw téye ci bu baax a baax a baax na ko maam ak baay téye loolu mooy li jaar waaye baay ak maam ak maamaat ak maamaat su fekkee ne ci ceddo la nekkoon. boo ñëwee nag bu la yàlla dimbalee dangay ngay jël ak ceddo googu teg ko fële jël lislaam bu sell te set muy alxuraan ak sunna nga nekk ci parce que yowmal qiyaam kenn du la laaj noo toppe woon bàyyi ak maam kenn du la laaj noo toppe ma sàmba ak ma demba kenn rek lan lay laaj noo ko toppe muy rasulullahi sallallahu yàlla ŋàññi na nga ñëw naan suñuy baay ak suñuy maam ci lii la leen fekkoon inna wajadna abaana ala umma wa inna ala athaarihim la muhtadun ak wa inna ala athaarihim la muqtadun yàlla ŋàññi na lool suñ bàyyi ak suñ maam ci lii lañ leen fekkoon yow nga ñëw nekk gone gu tooy xepp bëgg ñu jee génne l'islam kenn du ko xoole kenn du ko natte li baay ak maam nekkoon kenn du ko natte tamit li borom sant diw ak borom sant diw nekkee mais dañ koy natte ci lii nga ma indi ndax lu dëppook alxuraan la ak sunna su dëppook moom ma jël ak ci kum jóge bu jógee ci bàyyi ak maam nag day gën a neex ndax lii nga ma sant mooy li dëppook li yàlla bëgg ak yonentam su fekkee ni moom la ñu jël su moom doo ko ci topp ba ilaa ilaa ànd ak ne yàlla nee na ñuy rafetal jëmale ci suñuy waajur suñuy kilifa loolu lépp dafa wax ni waaye bu la bëggee sant loo xam ni bokkaale la ba leen ci topp wa in jaahada ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun fala tuti bu leen ci topp benn yoon mu ni kon lim ñu wax nee na nanu bàyyi li suñ bàyyeeg maam yi nekkoon loolu laa Abu Sufyaan wax buur bi nee na yonent bi loolu la leen sant